ki ñu suñu maytul ki nga xam ne que moo di Cheikh Bara euh, lu de nos ko dal exactement ndax jamono ji mi ngi que d'un ak alors ñu bëri sax jàpp ni est-ce que Cheikh Bara nekkul daal nous ces euh, dernières heures en tout cas li plus mon a am rek euh, ki que modica ou moo di kaawu Cheikh de mi ngi wéy di daal di li nga inquiété li nga modi euh, sénégalais n'a pas gagné neen lu leer jëm n'a ki que modi nekk moo di Cheikh Bara mu chroniqueur fa n'a xam ni itam mooy genre ko aussi des na ko daal di faram-fàccee

le tour du monde mais am na ñoo xam ni itam ñi ngi euh, génn que ni euh, boobu di image nag jàpp leen itam image bu yàgg la euh, mais am na ñoo xam ni itam jàpp ne ni ki na xam ne moo di Ousmane Sonko ma nga biir këram en tout cas lépp lu si mën am rek en ce qui concerne li nga xam ne moo di les barricades suñu ay ndaw dem neen fa waaye liñ fa daal di gis nag nemmeeku ñu fa benn barricade maanaam benn ko barrière nekkul fa nga xam ni itam mooy daanu ko cité kër góor gi te itam sax suñuy xool barrières yi si daanu ko sacré si. très bi ak li ko daal di góor fa leen daal di gën donc euh, fa na xamni itam mooy zaanuk ci keur goor gi amul ben barricade exactement mais gendarmerie dafa nekk si li nga xam que modi rond point Sacré Cœur ak li nga xamni itam moko daal peut être ni daal di yaakaar que Ousmane Sonko euh, amande li nga ramener que modi liberté euh, libertéem allant dans ce ñu daal di war barricade ou li nga que modi kërëm mais en ce qui concerne li nga que modi les barricades jàppale ni itam information bobu amul kër Ousmane Sonko kenn barricade dewu ko donte sax amna li nga modi quelques emplacements jëm si nga xam nekk moo ay forces de l'ordre mais en ce qui concerne les barrières nekku fa euh, fa nga xam ni itam nous que euh, cité kër góor gi alors euh, bi de image ma doon image bi nga ni itam ñu si ëpp partagé nañ ko faisant allusion que ni ki nga xam ne le de passer libéré nañ ko libérer bo xamni ni itam dafa nek li nga xam nekk discrètement en tout cas nak ki nga que modi el malik El Malick Ndiaye suñ sukkandikoo si mom moom euh, waxul ci lu mel lim wax que ni Ousmane Sonko état de santé mi gëna dégradé wu donc sûrement mi ngi daal di ñaan ñu daal di koy li nga que moo di donc comment comprendre ñu daal di li nga xamné que moo euh, tok gis bi di image faisant état que ni bàyyi nañ ki nga xamné que moo Ousmane Sonko lu moko peut-être passer, faut di réitérer euh, nous que demande jëm sur la libération bu ki nga xamné que moo Ousmane Sonko donc mi ngi nonu mu nekk image bi nga xamni ni bi ñu di gis à l'écran mu daal di tok ak

ko daa day euh, nekk euh, il a fallu euh, ñu daal di gis publication bu Anita TV ma ni kon loolu mu leen daal di rëcc si li nga xam ne moo di la communication d'Ousmane Sonko et que suivement peut-être su ñu ko bàyyi woon bàyyi teef bi nga xamni itam ñu koy daal di wax euh, ki nga xam nekk moo son chargé de protocole bu ki nga xam nekk moo di Jibi Gueye Ndiaye dina daal di wax waaye itam euh, ces femmes wala comme sax ak li nga xam que modi di koña koño malgré cela am vidéo bo xamni itam sénégalais ñu koy daal di partager faisant état que ni bàyyi nañ ki nga xam nekk moo Ousmane Sonko alors ñu ci ëpp nak ñu koy daal tuddee wàllu manipulation ak li nga xam que modi fake news jëm ci walu bu nu mel mais en tout cas image bi nga xamni itam euh, gis nañ ko appréciation yu ute na lool ba yegg ñi daal di jàpp ni image bu yàgg la ñi daal di japp ni image bu récente la jëm si li nga xam ne mooy le leader de Pastef mu daal di que ak noonu ak ki nga xam ne moo di kilifaam fa na xam ni itam moo di sa diwaanu donc mi ngi noonu euh, Sonko avec peut-être ben visage bu xawa li nga xam ne moo di alors ñu si ëpp nag jàpp ni ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko jamono ji grève de faim bi nga xam ni itam soobu na si moom itam jàpp ne ni aujourd'hui il est plus que jamais euh, à vouloir continuer li nga xam ne di jet bi mais en tout cas amani ko kon nak mi ngi daal di wéy euh, est-ce que va passer Pastef euh, jamono ji euh, lii du leen gën a découragé allant dans sens alors ñom ni dal di sakku seen uk leader di ki nga xam nekk moo di Ousmane Sonko que ni mu dal di gën li nga xam nekk moo tenir pare peut-être euh, pour faire face à ce régime jëm ci ki nga xam nekk moo le président Macky Sall en tout cas lépp lu su mën am rek jàppale ni tam euh, pour le moment Ousmane Sonko euh, ken xamul jamono ci euh, fan la daal di que ce soit cité Keur comme que soit fan xamni itam maison hôpital principal fan la ko dadi interne, interné ginnaaw bu mu daal di sóobu si li nga xam nekk de fin, en tout cas ki nga xam que moo di El Ndiaye peut-être ay kàddoom suñ sukkandiku en que li nga xam nekk analyse politique dañuy dadi di meuna japp ni ki nga xam nekk Ousmane Sonko batay mi ngi si loxo yoon ak wàllug parce que si dem à travers li nga xam que moo di publication ben xamni itam def na mi ngi japp ni carrément que ki nga xam nekk mooy seen lu dox di ki nga xam nekk modi Ousmane Sonko euh, son état de santé mi euh, gëna doy war euh, justement parce que suñu xol nak ki nga xam nekk modi Juan Branco waxoon na que ni mom ki nga xam nekk modi Sonko insuffisance rénale moo ko daal dal manam fièvre yi nga xam ni itam dafa daal di ñel wàllu rein te itam loolu la moo ko daal di di li nga xam nekk modi ñak nan ak li nga xam nekk modi di manque bi nga xam ni itam manqué na ko jëm si wàllu glycémie loolu moo koy daal di joxe exactement alors moom itam pendant lu daal di toll si ñaar fukki fan mu daal di dugg si nga xam ne que moo di benn ko de fin mu daal di xiifal euh, jàpp ni itam lii muy solution bi nga xam ne war na ko daal di war a mën a adopté euh, pour faire face ak noter gi nga xam ni itam ñu ko koy daal di note mais en tout cas daal jamono ji li ñu mën a daal di jàpp mooy ki nga xam ne que moo di Ousmane Sonko mi ngi si li nga xam ne que moo di de fin ba tey en tout cas euh, ñi ngi daal di xaar li nga xam ne que moo di sa cellule de communication ñi nga xam ni itam peut-être ñoom ñoo ko daal di war daal di war a mën a ñëw leeral éclairer la lanterne des Sénégalais par rapport accord ak seen leader di ki nga xam nekk moo di Ousmane Sonko est-ce que réellement amaan na li nga xam nekk moo di liberté provisoire wala kon est-ce que réellement moom ki nga xam nekk moo di Ousmane Sonko mi ngi ba tey si loxo yoon ak kalak yonal ak aussi état de santé am fa nga xam ni it mooy zaneko principal fan si daal di toll est-ce que yëf yi am na li nga xam nekk moo di amélioration parce que si les avis boobu ba tey mi ngi daal di euh, li nga xam nekk moo di varié wu ñu daal di jàpp ni Ousmane Sonko nangul jël li nga xam nekk moo di perfusion te itam ba tey il refuse euh, ñu daal di koy li nga xam nekk modi euh, perfusé en tout cas l'une ñu mën a jàpp rek mooy si wàllu euh, sur les dernières informations qui euh, n'a xam ne le leader de Pastef mi bataille sur le capital principal fii ñu daal di gis leen loo xam ni itam day wax li le contraire allant dans ce sens alors la libération d'Ousmane Sonko dans les plus brefs délais wala comme ça dans les prochaines euh, heures mu nekk loo tam ni ñu ëpp jamono ji gëm nañ ko ni euh, fii que li nga xam ne moo kanam tuuti Ousmane Sonko sera libéré en tout cas euh, su ko defee rek ñu xamni ni li nga xam ne moo le président Macky Sall peut-être mi ngi si li nga xam ne modi di yoon par la grande porte mu nekk lo xamni tam. itam sénégalais ñëpp ñu koy daal xaar enfin que li nga xam ne modi di jàmm geek ak li nga xam ne modi di sérénité beeg stabilité bi daal di wat ñëw si li nga xam que modi réew mi pour vous rappeler que ni le leader de passif il a été arrêté fa nga xam ni it cité kër góor gi ginnaaw ba ay li nga xam que moo di gendarmerie daal di escalader li nga xam que moo di këram li nga daal di toppee entre autres lu jëm si wàllu ko vol de téléphone ak appel à l'instruction jëm si agent bi nga xam ni itam ñoom ñaar ñoo ko daal di sekkoon nag noonu nag lu Ousmane Sonko daal defee benn ko poste que ni tenez-vous prêt tenez-vous prêt boobu nag moo tax ñu daal koy toppee li nga xam que moo appel à l'instruction ma leen fàttali aussi juróom-ñaari charge technique nañ ko si kawam ki nga xam ne que moo di Maham Diallo daal koy ñëw yokk bu juróom-ñett

instrument bobu rek la am peut-être pour mën dal daal di nga xam que moo justement xeex ak li nga xam que modi le président Macky Sall parce que japp na ni nag su nekké ci kasso bi ñu bari bëri da nga koy daal di fàtte mais toujours étant en prison Ousmane Sonko ba mi ngi wéy dal di def li nga xam que modi actualité donc aujourd'hui donc li nga xam que modi di wayam ak taxawayam ak li nga xamné que modi euh, justement euh, persistance am si li nga xamné que modi milieu politique bi dafa nek lo xamni tam franchement euh, du nga ko weddeeti donc Ousmane Sonko il est devenu une réalité li nga xamné que modi politique batay sax suñu xol justement jëm si li nga xamné que modi kawam manikon les sorties euh multiplient bokk na bu ki nga xamné que modi ba léegi Fall par rapport ak grève de faim bi nga xamni tam mom Ousmane Sonko sóobu na ci Ismaël daay day ni mom ki nga xamné que modi le leader de Pastef amul deful li nga xam que modi grève de faim totale manam lekul nanul et que tok na ay journée li nga xam que modi Ousmane Sonko lekul nanul way mom japp na ni moom ki nga xam que modi le garde des Sceaux ki nga xam que modi le leader de Pastef di ki nga xam que modi Ousmane Sonko do na jël li nga xam que modi ndekem samedi bi ñu daal di génn exactement alors euh, Sénégal yi ñu daal di laaj pendant li nga xam que modi peut-être 18 jours Sonko tok lekul nanul mu nek lo xam ne itam franchement c'est important ñu aussi waroon na bàyyi xel bu baax baax baax baax par rapport ak li nga xamné que modi euh, répercussions yi nga xam tam war na ko daal di mëna a jural si état de santé am en tant que li nga xamné que modi espoir euh yenn ci ay li nga xamné que modi ay ndaw alors euh, peut-être ñun à tant que li nga xamné que modi journaliste jéem ngeen laaj exactement comment euh la grève de faim yi daal di passé fa nga xam ni itam mooy zanu kaso ba alors euh, li nga xam ni itam jot na ko si daal di for